صلاة الله ثم السلام ñu ngay Not noonu balaa may wax ci dara ci anniversaire damay wax ne Astou dafa nekk xale boo xam ne macha allah li ma gën a marqué ci moom mooy ëdëb bi nga xam ne ànd na ak moom xale bu yaru la xale bu baax la macha allah xale bu yaatu la ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim la ku bëgg yàlla la loolu moo ñu déplacé jëlee ñu Dakar ànd ak sonn nañ lool fan yi waaye wax dëgg yàlla as moom amuñu benn yoon duñu pardonné benn yoon ñu bañ a ñëw ci anniversaire li ñu tax a sawar nag mooy dafa nekk xale war a def anniversaire am su ko neexoon mu defee ko neneen mais mu tànn tudd yàlla ba pare oo ay tuddkatu yàlla ku mel ni man ku mel ni Baye Abdoulaye Dramé ku mel ni Cheikh Tamsir Touré mu woo ñu ñun ñëpp dajale ñu ci benn tànt ne nañ ko tuddal yàlla nañ ko la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xale la su ko neexoon mu defee ko neneen mais li ñu gën a sawarloo ci ñëw mooy lim tànn tudd yàlla ne moom lay def anniversaire am ñu koy ñaanal yàlla nag bu baax a baax a baax dëgg-dëgg fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale yàlla na ko yàlla dimbale may ko réussite ci projet yëpp. ci barke Maolana Cheikh Ibrahim xale bu baax la xale bu am yar la loolu lañ xam ci moom. macha allah beneen bi mooy anniversaire bi ni mu ko tànn defee mooy tudd yàlla ak tagg Maolana Cheikh Ibrahim Niass sawar nañ ci lool loolu moo ñu gën a sawarloo pour ñu ñëw ñu nuñ koy def wolof jaay dafay wax koo xam ne yow xamoon noo koy def rek nim la def moo tax astu daf ma bëgg yaayoo ma magoo ma. maa ngi léppam dañ koy tooñ naan ko sa yaay sa yaay sa yaay vraiment kontaan nañ lool ci moom koy ñaanal yàlla. looy wax ndaw ñi nga xam ne bëgg nañ jël yoon bi mu jël lan nga leen di dénk. alhamdulilah yoon yoon bi jar a jël sàll yoon yëpp tardement la teel a ñëw jël yoon bii moo gën daal man daal maa ngi wax ndaw yi xale yi nga xam ne ñoo ñooy ay moromam tey nekk moom. ñu xool ci moom roy ci moom te xam ne duñ ko rëccu ndax lii rek moo fi nekk gannaaw lii dara amu fi. macha allah mën nañ xaar papa tuuti gannaaw am na ñëw bi Seyda ñu ngi lay jaar la ndokkalaat beneen yoon. Hmm. di kontaan gis activité ni ngay taxawee ci Fayda lan mooy sa calendrier bi nga xam ne moom ak ni muy chargé. yow hmm. nan nga gisee sa yëngatu ci Fayda nan nga gisee mbokk taalibe yi ni nga xam ne noonu lañ jàppee moom laa Cheikh ak ñi nga xam ne sax duñu ay taalibe. waaw sant bu baax a baax. boo gisee programme yi ni muy demee nga xam ne lii du dara lu avancement faydu faydu bi moo avancé faydu bi fi mu toll nii macha allah moo toll foo xam ne programme bi da ngay dem ba mënatoo ko sax utal calendrier parce que da ngay xool li nga xam ne mu doon am samdi ba samdi mbaa samdi ba dimanche léegi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi ba vendredi yépp ay programme lay doon yoo xam ne nii. ay tanti Mawlana Cheikh Ibrahim la donc sant yàlla la bu baax a baax a baax metti na waaye comme ñun ni ko suñu sëriñ di waxee ne moom buy liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim nit ñi ñoo ko yëg di gis ne kii mu ngi sonn waaye ñun bu xasee ba sóobu ci rek coono ji day daal di dañ ndax amour bi nga xam ne am nañ ko ci liggéeyal ko ak moom li nga xam ne wax na ko ci ku ko liggéeyal ina la zina xaddamoo ni naaloo muraadom saadatuno maalo loolu wax dëgg yàlla jar na tax képp ku toogoon rek nga jug takkaayu takk sa ndigg liggéeyal Mawlana que moom nee na liggéey bi moom amu ci benn bénéfice waaye ñun ñun retombées yépp si ñun lay ñëwaat ñun ñoo ciy jëriñu ñun ñoo ci amee suñ àdduna amee ci suñ àllaaxira kon nañ jéem a liggéeyal bàyyi te buñ taxaw. looy wax ñi nga xam ne ñëwaguñ ci faydu lan nga leen di ci Mawlana Cheikh Ibrahim lan nga leen di digalee loo tax mën na xamee loo ñëw ci faydu. waaw alhamdulilah liñ leen di wax rek mooy ne faydu moom bàyyi macha allah li ko tax a neex mooy ñëwul pour wane boppam faydu li ko tax a jóg mooy moom dafa ñëw pour wane yàlla dafa ñëw pour xamle yàlla dafa ñëw ne kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla ñëwul ne mbaa kaay leen ci sama baay mbaa kaay leen ci sama yaay waaye dafa ñëw ne kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla donc wax dëgg yàlla te gis naa leen ndaw ñi fi mu toll nii mar yàlla lañ def xiif yàlla lañ def te xam naa ne fépp fu ñu yaakaar ne fii bu ñu fa defee dinañ fa am yàlla ñu fay dem waaye ñu ngi leen di rek laayee biir di leen wax ne leen moom naa Cheikh Ibrahim lii mu fi indi muy faydu du dara lu du jëmale jaam bi ci yàlla du dara lu dul yow mi nga xam ne yàlla namm yàlla yaa xiif yàlla yaa mar yàlla mu teg la ci yoon bi ba ne la yàngoog sa borom ko mi nga xam ne yaa bëgg yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim mooy joxe yàlla ci lu wér lu amul benn sikk macha allah kontaan nañu baax si. di leen sant yéen waa Barham Universel Média seen liggéey rafet na trop trop trop mu ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax a baax di leen ñaanal nag dama bëgg mu doon ay télé ay télé télé yoo xam ne dafay wër àdduna bi yépp ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim liggéey bi rafet na macha allah sell na rafet na sell na yal na yàlla euh, taxaw ci seeni mbir ni ngeen taxawee ci mbiri pays bi. yàlla na ko yàlla taxawee ci seen mbir ci barke Cheikh Ibrahima chaque seconde rek yàlla na ngeen di yokk ba yokk ko Barham Universel pays bi rek la fi nekk. صلاة الله ثم السلام فطرها